nit ànd na ak nit mu am nakar fu mu seen diko laqatu wala bu gisee ku mu xam diko ko kon waa Pastef jërë ngeen jëf tam may mun a maa leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal mbenn sama coordinateur tey nag maa fi teewal les défenseuses ku xam les défenseuses xam ko ci xeex ak ak fa doomu adama parce que kenn ku nekk si ñun rek jigéen nga weer bi ñu ngi ñaan Macky Sall ci mbaaxu yàlla kàttanu yonent bi na delloo si xelam xam ne àddina day jeex te loo jëful ci àddina doo ko fekk ci biir bàmmeel te ëllëg bis penc suñu borom dina ko laaj nan la jiite woon senegaal ñun en tant que ay jigéen nim ñu jiitee méttit la ñu jiitee ak dóor ak rey ak tottiire ku xam parti Pastef xam ko ci jigéen bi ñu njëkk a boom muy Maimouna Mariama Sagna ñu koy jooy ba tey gisaguñu ki ko rey suñu autorité Sénégal yi lu ñu bëgg a xam balaa 24 heures ñu xam ko kon ñu ñooy ku ma amul ndey mu tourné waat di ñu jiñ ay force spéciale man 93 laa jur mosuma xam luy force ak force spéciale kon bu ñu xëyee dañu présenté suñu yaay ñu jàkkaarloo ñu ñu koy jiñ ay force spéciale c'est dommage Macky Sall essuwee na waaye nag nii la mënoon demee te nii rek lay mën a demee ki ñiko ko ño sengor, sengor ño ñoo Abdou Diouf diko xalamal wër mam Lay wad diko xalamal kon buñ ko wëree uf ko ngem kon ni rek la mëna démé kewel dom du tepp dom je bët ñu koy ñaan mu bàyyi tan ami dia torture prison amna parce que ñun loi terroriste bi buñ koy xex en tant que jigen ak ñom Abdou Karim Xurum xaq ñun lañ jappando won diñu door dóor dugal ñu ci fugaret dangay gis góor yàlla bu làmb làmbatu daal ni lii jigéen la wala góor la mu nooy mu yem ci suufu ween mu kaata riit nga ne wuy sama ndey delluwaat ginnaaw keneen ki fekk na fekk la fa ne la mbéj tar ci ab lëndëm looy yuuxu jàpp fugaret bi def ñu tànn parkaat aj suñuy sër di ñu dóor dóor yu metti ñi xees buñ la wonee seeni cër danga naan déedéet ñun ñi ñuul da ngay tok 2 mois yo xam pour nga tok salal sax problème la kon torture bi dañ ko yàgg di ko dund ci président Macky Sall. muy fexé ba li bu mu fi amati mukk muy japp jigen diko def ni ñuy def jigen ñi ndax lan politiquement fe nga bok lolu la bëgg mu jeex bës ni ki ndax dafa jeex nak jigen wara a rek yoré taccu tàccu beeg nuróole beeg fecc bi dañu bëgg ay jigen yuy construire société kon nak dañu bëgg xolin bu bes doxalin bu bes taxaway bu bes parce que bu yagge dinañ dem ba jigen ñi dootuñu sax genn seen kër yi ci kër yi rek lañuy tok te lolu dafa jeex li monde bi laaj dotul jigen bu tok rek këram japp njamuram ndax jigen ñi bo dé seet ci domaine yu bari ñoo ci gëna ëpp sax taxaway kon war nañ leen mëna warna war nañ leen mëna may may euh, fit waye fi mu ne wàññi nañu suñu fit yépp lu way sañon fii mu nekk tay ji da ngay xol ndax ding ko def wala do ko defat waye ni ngeen toge ni don ben say ni ngeen toge ni am taxaway ne du ngeen delu ginaaw man mi ma ci ak yeen duñu delu ginaaw ben tank bi de mom damay ñaan yalla mu wër waye bu ci benen bi topé sax ma ma rendez-vous bi invitation bi jàllale nañ ko ci sunu mbokk journaliste yi nga xamante mention spéciale encore une fois Gatien Lama, yéen xale journalistes vous avez opté pour la bonne voie